没来，有米多。

还能干白？这皮包，我给你说，我这包我落了多少件？这么多？这么多？

Contra, contra. Contra. mooy les politiques matérielles yi nga xam ni moom la ñu def sax mooy évaluation parce que ñun aspect traditionnel bi li ñu am mooy par exemple lii lii séance lii ñun suñu tradition lawbe yi ñu koy defal di ci liggéey mais précision bi ñu soxla lii mooy lii léegi bu ñu déggee jas bi gis nii dafa nekk finition day finir en même temps mais li muy finir léegi industriel industriel yi Sénégal ba léegi machine bi nga gis loolu moo ko topp day day finir waaw léegi machine bi nga remplacé non seulement les espaces mais épaisseur de 2 cm. 2 cm On a aussi une possibilité de profiter Donc, l'île, l'île reste à repartir mais à chaud. day jàngal day dressé day redressé mais en même temps li muy redressé day tranché day tranché ci niveau de température bi mu war a am mën a fixer espace boobu nga xam ko ko tàllalee lu mën a donc mooy loolu matériel la même matériel bu am solo ñu ni ba tey dafay dafay dafay permettre daal mu mën boo xam ne pour wala yu demee noonu bu fekkee kii centimètre la da koy war a mën a mën a mën a écarté. dañuy sóoraale bi ñu jël mën a war a mooy ay

polio yi ci tàmbali yi mën a jaar pour polio prévoir nañ ko ci machine bi moo waral circuit bi en même temps bu dee wàllu monte daal dafa lay permettre nga mën a toog liggéey ak utiliser

ak lépp li nga xam ne mooy logistique bi nga xam ne moom moo ci war a intervenir ba ci wér bi mooy loolu ci la bokk nga xam ne am na autonomie bi presque am sax le directeur direction moom day wax voilà le manument gouverneur voilà donc machine bi machine bi dafa am solo trop parce que fii mooy machine à reprendre machine à reprendre mooy machine boo xam ne écartement bi mu am na 40 centimètres bi bu jafe la mooy bi gën a seet bii toll am na boo xam ne exactement vingt vingt centimètres na jar bu dee parce que dafay nekk machine boo xam machine mixte nga xam ni porte yooyu dina ko mën a utiliser marché yooyu man parce que jëm ci ay cartable yu demee noonu day war a mën a jàpp mais day xar leen da koy fan da koy fànn soo ko dugalee épaisseur bi ni mu toll mën na koy defaat cinq fois te moom moo koy génne te bu ci nekk da ngay am restant bi dara lu ci am mën nga mën nga doubler der bi ki bi nga xam moo ci génn mais c'est pas pour tout moom la ñuy wax pour pour moom dafay génn. donc i mooy moom la ñu doon liir sànq mooy presse à bras courts mooy mooy presse à bras courts presse bi bu coupé la. Mevlüt cette fois-ci, encore plus, on est produit en série. tey bii dimension dàllal la bii moo dem première dàllal léegi kii boo ko tegee fii bi moom mooy bës moom seize tonnes lay wàcce muy wàcc system lay wàcc su fekk bi dafay gis man moteur bi mën a doon moteur bi nu mu toll fii rek mën nga teg gabarit mën nga teg épaisseur bu toll noonu volume bu toll noonu te noonu la koy coupé la parce que c'est comme lay wàcc te ay machine yoo xam ne sophistiqué nañ leen mais tam machine yi am solo ci wàllu prudence bañ nañ ko ba sécurité ko pour éviter sa loxo des fii muy wàcc fexe nañ ko ñaari bouton yi soo leen bësandoo ko poñ foo sa ñaari loxo ok moo tax machine bi kenn du seetaan kenn du seetaan que man man nga sa loxo def nii wala yëpp voilà c'est fini quoi. donc donc gàmm la bi nga xam ne nag dañ ko war a wàññi nag par ay centimètres yoo yoo réglementé fii nga koy jaarale boo amoon ay épisodes yu cinq millimètres wala wala dix millimètres soo ko jaaralee soo soxlaa épisode cinq millimètres moom moo koy wàññi ci cinq millimètres mais nag comme ça boo ko plier boo waree leen boo ko lemee ba mu nekk ak dix millimètres donc c'est des machines yoo xam ne donc li nga xam ne mooy prêt à souder professionnel yi mu ngi xam ne hydro système hydraulique la dafay ànd ak compresseur parce que moom la machine bële li ñu doon présenté ci machine bële mooy bi nga xam ne en série moom moo koy moom mooy mooy efficacité mooy presse à chaud bi waaw léegi nag dañ ci am ñaari option mooy benn bi day utiliser gauche bi il utilise droit moo tax

waaw Papa Leye liggéey métti tamit ñu liggéey ah. donc.

mooy forme maragis forme

signe yi bu conseiller bu nga xam ni da nga a moytu da nga war a garder sa sécurité ci biir liggéey bi tam en même temps a comporté ak xam nga kii xam nga kii moom nekkul ci nekkul ci ci danse la nekk voilà donc genre yu mel noonu parce que kii tam ni muy noyyee xol bi xol bi nag xam naa ko war a xam yooyu yëpp am na ay yëpp yëpp